ثم دنا فتدى بالمعتدي أصل الوصول سيدي حبيبنا المبجل قد كان خير المرسلين قبل الوجود الأول ولم يكن من جندلي لأصلنا المؤصل لم يدر خير الخلق في خلقه وخلق سوى الإله الهاق من ملك أو مرسل فشعنه شعن عجيب ورمزه رمز الحبيب رمز الحبيب للحبيب بالعرف غير مشكل أهلا به إذ هملا أهلا به إذ نزل مفخما مبجلا قد فاق كل رسل يا للإمام المعتلى متى عجاب ببلا لولا هدام مشكلا لعظم ما قد ينجلي أهلا به إذ أرسلا وإسرا ونزلا ونال ذكرا منزلا وليس بالمبدل أهلا به هنا تلا سبع المثاني مسجلا ونوره تأصلا من مجده المؤصل جل فكري في معالي أحمد الجم نوالي إنه حقا تجيعي ورافقي في مجالي بات يسري فتدى الله دون كيف أو مثال جل طه وتعالى فوق فكري ومقالي لا إله غير الله الله الله الله دب في سري هواه من كرني لنعالي وهو سرا حق عبدا سلمى من عين الكتان لا إله إلا الله الله إلا الله وهو يدعو حقا دهرا بسواه لا يبالي زجر الأذى بصيفي أو صدري للأوالي لا إله إلا الله الله أعلى إلا الله حكم العاصي ففيهم ما هي كل جدالي طراد الأصنام والأوثان تدعو لزوال لا إله إلا الله الله الله يسجد المشرك كرها لإله ذي الجلال كل كفر صار سلما رغم أو في الضلال لا إله إلا الله الله إلا الله لنا سحر وهو صار ثم أمر في الجدال مع سوى زين وكل قضاه بعد بدر الكمال لا إله إلا الله الله أعلى إلا الله عين السر جاء جاهرا ذو انفصالي واتصالي وهو سرا ذو اتصال وهو جهرا ذو انفصال لا إله إلا الله الله إلا الله Below our beautiful uh, weekend school that we have here, the kids that we saw earlier on in the uh, in the evening. Uh, Imam Saho is currently studying uh, for his PhD in Islamic Studies in Miska University. Um, he wrote over 5,000 poetry, and that's just uh, amazing. And like I said, I, I can't summarize his experience in words. So I will just call on Imam Saho yeah, to please come and um, close the program. Thank you again. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Now, inshallah, before we end, our brother will be closing. Maybe will with one to two minutes of commenting, to, then make dua, inshallah. Or Sharif will make dua for us, inshallah, to close the program. Uh, moom de xam naa ne tey <clears throat> li ñu fi dégg. Euh, li Serigne Cheikh daan wax ne mën nañu yóbbu ba déwén waaye liñ fi dégg foog naa ne mën nañu yóbbu ba giir gi dund dalee ci ñi fi njëkk a wax ba ñi fi mujj wax ci ay sang te conférence bu ci nekk rek borom yéene jëm ca am barke ba rek yàlla mën nañu ci defarale suñu yëf yëpp ci biir ak ci biti rawatina nag xam-xam bañ ca sotti ak xereñee ga ku mel ne brother Gohar ci environnement yi nga xam ne eh, maanaam environnement familial yi yi ñu yi ak ak eh, raglu gi mu raglu ak stati yi mu fi joxe ku nekk ci ñun war ci gis boppam jàng ci pour xool ni ñuy yare suñu njaboot ak ni ñuy yaree suñu bopp te eh, brother Abdul Hafiz ñëw confirmer loolu ci statistique yi nga xam ne am na ci ne dëgg la l'islam mooy the fastest growing religion in the world of course waaye mel na ni it li ñuy am ci ñiy dugg si lu mel noonu ñu ngi koy ñàkk ci suñuy ndaw loolu nag parent bu nekk war na ci gis boppam xool responsabilité lan la ci sama doom bi ma ko yàlla dénkeeg léegi lan laa defagum ànd ak yàlla ne ko ki nga ma joxoon kat li ma mënoon def naa ko ci li ci des ma bàyyee la ko benn nitu yàlla daan na wax ne yàlla du defal kenn lu mën nee na li nga mënul rek la lay defal da ngay def li nga mën la nga mënul mu defal la ko euh, foog naa ne bu ñu jógee ci leçon boobu ñëw ci li docteur Rahil wax ci ne ñaari yëf ñaari yëf muy warmth and control ñooy the keys to successful family sa njaboot nañ la jaral lu ne waaye it seen baax na la jaral lu ne nañ la jaral lu ne ba loo am jox leen loo mën defal leen waaye ñu jaar fi yàlla bëgg ñu war a jaar nara jaral lu ne li mu bëgg a wax mooy su fekkee xale bi lu mu def rek nga yuuxu lu mu def rek nga dóor nga ne danga ko bëgg yar bëgg mu baax gi xëy na mën naa am nga foog ne jaral na la lu ne waaye jaralu la ko ndax tegewut ci yoon woom war a tege ndax bu la ragalee du séddoog yow te bu séddoowut ak yow nëbb la te bu la nëbbee doo xam ci moom dara te boo xamul ci moom dara doo mën ci moom dara mu wax ne nag ñu fexe mbëgg suñ doom yi ndax loolu naturel la waaye nag bu bëgg ga ëpp li ñu suñu boroom wax ne nañ ko def ci ñoom te dëgg-dëgg sax loolu loolay bëgg ga loolu nag buñ ko amee buñ ko defee ñu ngi jëmbët ci ñoom istidaadaat yi tax li professeur Souleymane Bachir bu baax bi toog ak ñun gis ngeen ko mënoon na ñëw rekk def waxtaanam dem waaye mu ñëw ànd ak ñun def waxtaanam ba pare générosité am yegg ci mu toogaat ak ñun ba ñuy tëj programme bi loolu mu ngi ñuy wax ne lim ñu doon wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa du histoire cest à lu muy dund la te yooyu ñaar yooyu euh, ah, docteur Rahil wax moo ñuy jëmee ci yegg ci fi mu wax ne li yonent bi li indi woon yonent bi sallallahu alayhi mooy jàngal ñu roy te jàngalewul ñu roy ci ni ñu roy leen ma mais daf ñu jàngalee roy ci xool leen ni may royee ndax bu ñu ñëwee ne ko xayrul bariyati mu ne zaka ibrahimu te moo gën ibrahima buñ ne ko kan a gën a tedd ci nit ñi mu ne yuusuf ibnu nabi ibnu nabi ibnu nabi yusuf doomi yonant baayam yonant yaquba maamam yonant isxaqa maamaatam yonant ibrahima te moo gën yun gën yusuf bu ñu ñëwee di jàng alquran fii yàlla niroo ku muy yaddee yunusa mu ne bu leen jëlati yunus ibnu matta di ko teg ci sama suuf laa tufaddiluuni ala yunus ibnu matta te moo ko gën mbaax gu ne rek mu raxasu ca jox ko ñeneen suy wax ak yàlla naan ko te lu nee ngi ci man nag yow yàlla wa indi yàlla baal ma sama njuumte baal ma sama tey baal ma sama nang moom mi gën a set ci li yàlla bind moom sax mooy ramz ci set naan ko yàlla baal ma yooyu yëpp te yooyu yëpp a ngi ci man ndeke boobu mu ngi ñuy jàngal na ngeen di jullee ci man ni ko professeur waxee wax leen ne yàlla li nga defaloon Ibrahima xaw ma defal ma loolu la wax xaw defalee ma ko nanga ko ko defalee la wax kama sallayta loolu it muy wax ñu daraja jim jox Ibrahima mu wane ne Ibrahima moo e, tënk walla moo représenté tawxiid mu wax ne yi tamit liñ war a xam mooy yorewuñ lu bees ndono li yonent bi indi jox ñu ko mooy lii yàlla am ndax yàlla wax nañu yonent yépp ci alxuraan ne ay jullit lañ wax nañu ci yonentu yàlla suleymaan innahu min suleymaana wa innahu bismillahi arrahmani arrahimi an laa taalu alayya waatuni muslimina tawakkalu in kuntum muslimina yonentu ya fi sóorati yunus sayyiduna nuux wax na woon ne wa umirtu an akuna min al seydina isa fa lamma axassa isa minhum alkufra qaala man ansaariya ila allahi qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llahi amanna billahi washhad bi anna muslimuuna yuusufa nag ne yàlla man rey ma ci lislaam moom mi ju yonantu tawaffani musliman wa alxiqni bisaalixiina yonent yàlla ibrahima id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil aalamiina mook doom ja ismaila wa id yarfau ibrahimu alqawaacida min albeyti wa ismailu rabbana taqabal minna innaka anta samiu alalim lan la ibrahima mi nga xam ne mooy jëmmit eh, eh, tawxiid ci waxin daf doon ñaan yàlla mu def ko jullit mook doom ji wa wajaalna muslimay nik lakka wa min dhurriyatina rabbana jaalna muslimayni laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan laka loolu lim ñuy jàngal mooy kon yonent bi indiwut lu bees waaye dafa ñëw nag fekk la ca baaxoon mu jëmmal ko te ñoom ci moom lañ ko donnee sax nag ndax waxoon na ca alquran qul in kaana yàllaa ko wax ne waxal qul in kaana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina su yàlla amoon doom war naa koo xam xanaa ndax man maa fi njëkk di jaam te fekkuma fi doomam ñu xamee ci ne ko moom rek nekkatul sa doom fa ana awwalul abidina ndax jaam ke doom kenn du ko moom yàlla yi ne ko ulaayika alladina hada fa bi hudaahu muqtade kon nag yooyu ñoom ñu jàngal ñu ba ci imaam Moustapha Diop ci jukko ju rafet te sëriñ daaw da feddali ko ci dëggu ak ànd ak ñi dëggu defe naa ne bu ci nekk ci yooyu ak yi ma tëpp euh, doyoon na ñu toog guddig lëmm di dégg ok ñu ngi leen di wax dëgg yàlla nag sant sant goo xam ne mën naa am fu dale waaye du am fu yem ci fàttali gi ngeen ñu fàttali ne yonentu buñ koy fàttalikoo war a jéem a mel ni ni wax ne nañ ko mel la de moom kenn mënta mel ni moom te loolu mooy sallallahu alayhi yàlla lim ko ne nañu génnee li tuxrija naasa min adulumaati ila nuuri waanaam soow mi li ciy ñuul yépp nañ ko dindi balaañ koo naan ku nekk ci ñun boo jisoon pepp tilim ci sa soow doo ko nangoo naan ku gisoon ci ñun toqub saw ci sab soow doo ko nangoo naan waa ñu bëgg nag toqi bàkkaar yeeg lëndëm yi yépp wala saaku yi lëndëm yi ci suñ xol yàlla da ca dugg ibnu ataayilaayi mu ne ni nga xamee ne xol ni nga xamee ne jëf juñ ko bokkaale du ko nangu xol buñ ko boolee keneen it du ca dugg moom sama borom subhaanahu mu wan ñuy tamit ci li brother Hassan wax ci mooy imaam Xasan Abdul Akbar ci gàddaay ci euh, fatxu makkata ak leçon yi ci yonent bi jàngale humilité boobu professeur waxoon ñu war a delluwaat foofu tamit mooy saa yoo gisee ne am nga koo gën ci li yàlla bind rek xamal ne gënoo kenn boo moytu sax yaay yées góor ga mu ne fala tarayanna fi l ardi duunaka muminan wala kaafiran xataa tugayyaba fi lqabri fa inna xitaama al amri anka mugayyabun wa man laysa da xusrin yaxaafu min al makri feeg deewu la bañ dugal la ci xabru ba yàlla ne la yow mi texe nga bul foog ne yéeféer wala jullit am na boogam mu ne gannaaw xamoo mujj lan la bul bul wóolu fexeem yàlla falaa yaamunu makra allahi illa al qawmu alxaasiruuna yooyu nag ñu war cee bàyyi xel jàngal ñu it ne continuité boobu yàlla wax ñu ci alxuraan yonentu jàngal ñu mu nekk ci suñuy loxo amuñu droit abandone moo xam ci suñ doom la moo xam ci suñ bopp la moo xam ci suñuy jegeñaale la moo xam ci umma bi yépp yonentu yàlla yoonu sa fàddu gu tuuti rek gum fàddu aw nitam bañ a des ak mu ñoom wan leen yàlla ci la ko yàlla dugalee ci biir ndox dugal ko ci biirub jën mu nekk fa ay fan di sàbbal sama borom sama borom soo ko génnee pour mu delluwaat ñam foogoo ne dana alak dana leen alak mu musal leen ndegam ku toll ni yonant la yàlla di puniree bàyyi gum bàyyi aw nitam ab jamono rek rawatina nag ñun yonantu nañu kaanat banu israil tasuusuhumul anbiyaa tasuusuhum anbiyaauhum ida maata nabiyun xalafahu nabi mu ne nitu banu Israayil seen yonent yi ñoo doon seen deferkat yi maanaam ñoo doon seen buur yi ñoo doon seen politique yi ñoo doon seen deferkat yi àdduna yi loolu lim ñuy wan mooy man maa mujj ci yonent yi hmm. kon nag yéen ñi fi des donn li ma amee moo xam xam-xam la te moom loolu la wax ne lañ koy doon donnee ak xikmatu ndax moom ne yàlla jox na ma alxuraan ak lu mel ni moom ku nekk ci ñun loo ca am lum tuuti tuuti sa mission la nga xam ne la yonantu nu Israël yi doon def mi ngi ci sa loxo fi mu ne ku nekk nag kem talaay li nga xam ak kem talaay ñi nga xam daawa mutlaqa moom boroom xam-xam yi la xam la war waaye daawa xasaba ma naarifu wa xasaba man naarifu kooku ku nekk ci ñun la loolu nag moo tax euh, sang yu baax yi dajee fi tey jàngal ñu leçon ndax ku nekk tey mënoon ngaa nekk tey mënoon ngaa def leneen waaye ñu ku nekk yàq sa xaalis yàq sa temps ñëw ànd ak ñun guddi gi yépp share ak ñun euh, these pearls loolu wax dëgg yàlla honneur la waaye ñi nga xam ne yi tamit mënoon nañoo defi leneen ñu ñëw ndax wax moom balaa neexee fa ngay am ku la déglu ku nekk ci ñoom ñëw déglu waaye ànd ak contribuer ci lépp loo xam ne ni ñu ngi ko fi def ah ñooñu fokk ñu gërëm leen waaye duñ leen gërëm mukk ci suñ tur dama am sama benn xarit mu ne ma man daal bëgg naa ñëw waaye eh, am na ku ma waxal bu fekkee ne otom dana dikk bu dul loolu moom xam xaw ma nu may def léegi joxe excuse joxe su ma defee ma ne ko sëriñ bi xam nga man wooteelu ma sama baay waaw ma ne ko moo tax du ma la mën a bébi si tan yonent bi lañ wootee sallallahu alayhi wa sallam soo defee ku nekk ci àll ba mën nañ ko comprendre ñu dimbale ñu wooteel yonent bi nga mel ni boo ñëwee fa nga am ko ñëwul ne waaye nag a ah, ku woote yonent bi nit ñi ñëw it mu nangul nañ la xëy na ne bu dee bëgg sax am nga ko ci yonent bi lu reconnaissance boobu it mënoo ko fay nit ñi rawatina nag waa island bi salimata soxna salimata mi ma jox liste bu day ne ñey boo xam ne ku nekk ak euh, service yi nga def ak euh, li nga cotiser ñu mel ni ñoom soxna Aïcha Diouf ndeysaan bu Serigne Diouf suñu xarit boo xam ne euh, au passage ñu ñaanal ko jóge fi yàlla yërëm ko ñoom soxna Maguette euh, dégg nga ñoom soxna Sali Sali Sembène bu bu Thierno Abdoulaye Abdou Thierno Abdoulaye dégg naa mooy président wu Pape Laye Sembène mooy président wu góoru benn jabar yi waaw ah, na Ndeye Khady Seck moog sooki ñoo koy ñoo koy xëccoo waaye moom dafa nangu sooki nag fu mu toll mi ngi wax te tabarka la waaw soxna ami bu Mbay Jóob ak eh, maam bint Gueye bu Pape Cissé bi fi jógee yal na ko yàlla yërëm moom it nit ku baax a baax wax dëgg yàlla ak eh, Kumba soxna Kumba bu élage président dafa nekk Sénégal looloo tax ñëwut ak eh, soxna Ima Ba bu Thierno Abdoulaye sax na Bintu Diallo eh, jëkkëram damay wax ni royukaay la ci ñun ñëpp ndax judduwut ci diine waaye damay wax toujours bu ñu ne diw tuubeen la ma ne niki Abu Bakrin ñi judduwul ci diine daanaka ñoo gën ci diine du toog semaine lu dul dina ñëw fii jënd tàndarma bàyyi fii jël dara dugal ci kees bi jëkkër ji te kenn du ko gis waa Libéria yàlla Euh, soxna Bintu nekk ku baax soxna Bintu Diallo soxna Bintu Diakho nag non seulement moom it gis ngeen ceeb yi mu fi togg euh, ba euh, ñëpp saalit ak Mandiaye Mandiaye bi ñu bi ñu lekkee ba pare docteur Rahel dafa ne ma dama bëgg a dem seeti chef bi mu jox ma kartaam ma ne yow de saalit nga kon ndeysaan ak sama yaay tudd naa ko sànq ami Dia ci. Euh, lekk yi ak euh, soxna Ndey Njaay nga xam ne yu wéram sax mayut ko ko mais dafa am ku mu jox ca àll ba pour mu defaral ko ay beñe pour euh, guddi gi loolu it wax dëgg yàlla moo ñoom soxna Ndey Xadi soxna Ndey Xadi Mbeng ba ma ñëwee Staten Island ba léegi mu ngi naan mu ñun de at mu weer wu nekk wala dimanche bu nekk war nañoo dajee def nangam ma ne ko sa daayira bii de du ma a taxaw <laughs> yaa Ndey Xadi Adja Mariam Ndour nga bu Serigne Babacar waaw nga xam ngeen ne ci yitte ji ci euh, fu mu toll mi ngi ci xale mi pour ñu jàng pour ñu tabarakalla te jigéen la benn loxo la euh, ak euh, soxna Maram Seen soxna Ndey Xadi soxna soxna si taala si nu mu tuddati ate naa tur ba ak suñu suñu patron maak soogi sëñ Tamsir gis ngeen diggu diggee mu jógee ba New Jersey ca capitalu New Jersey ñaari waxtu daanaka ànd fanaan fii ak ñi nga xam ne sax dégguñu sax lakk yi ñuy lakk waaye ñu ànd feek ñun Anas ah, this is my buddy macha allah mu ngi fi depuis guddi di vidéo waxtaan yeeg yu mel noonu tabaarakallah soxna Aïcha waaw soxna ay Aïcha Diagne gis nga <laughs> waxaat ko <laughs> soxna Aïcha Diagne si madame Alxaaji Daawda si macha allah ah mi ngi fi baarakallaahu kooku moom fokk ñu gërëm ko ndeysaan ak ñi nga xam ne ñoo fi ñëw yëpp ndi seen eh, ndimbal ci forme bu nekk nag ku mel ni ASA association des sénégalais eh, bu bi nekk fii ak association sénégalais bu Amérique Ibrahima Sow mi ngi foon président bi eh, au passage euh, waxoon naa ne loolu la ñuy ubbee sax sama xel moo fattu waaye euh, ambassadeur Fodé Seck ci bëccëg la ma woo ne ma soxnaam ak soxna professeur ñu ngi doon coordonné pour ànd ñëw mais dañ ko téléphoné senegal yaayam moo gaañu moom Fodé ba mu ngi noonu di toppatoo ticket pour dem mook soxna si dem nañ tey waaw kooku ñu Eh, def boole balaa ñoo te ngeen bool dugal ko ci ñaan yi ñaanal nañ ko fii sax ci jàkk ji biñ jullee tisbaar waaye ngeen boole ko ci ko defee daayira yi fi daje yëpp daayira xiyaaru naas daayira ansaaru diin eh, parti réew mi eh, dégg nga Pape Ba ànd waa association des sénégalais d'Amérique ak waxan naa sama yaay de soxna Mbayang Fall moom xam nga moom tabarkal la ak Adja Salimata Salimata mooy suñu boos man ak euh, Hadj Mor Hadj Mor euh, ku baax la te serviable wax dëgg yàlla euh, sëriñ bi nu mu tuddati Baye Tafsir Baye moom xam ngeen ko lu ñuy dugg rek moo cay jiitu waaw oto yi jógee Manhattan daf ne ma am naa benn oto ak sama oto mu ne ma fay naa ko nag waaye bu wax kenn. xam naa wax naa ko ñëpp nag waaw ah. <laughs> ah. nga lu ñu soxla rek mu bàyyi soxlaam yëpp dem euh, doxi ko te wutu ci dara lu dul yàlla yàlla na ko yàlla may yàlla yaara bi barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, Mouhamed Ibrahim waa Gànna la Alioune moom xam naa dama ak moom dañoo am xuloo moo tax du ma ko gërëm tey waaw ah, moom nag ah suñu suñu suñu kii la mais léegi xam nga comme producteur la Euh, mu ne ko Alioune da jafe-jafe lu wala da nga mu ne ma jafe boo <laughs> mu ne ma yaa ko jàngal nag euh, Alioune bandi la ah, ah Alioune ku baax la nag wax dëgg yàlla man moom dañuy xuloo waaye ñoo far ak sëriñ Ibou Faye ak soxna Awa soxna Awa Sow tabaarakallaahu ak yitte ji nga xam ne lu ñuy yëgle ci dëkk bi moo ci taxaw euh, daayira New Jersey bi gis nga leen nii ñëw ànd ak góor ñi jigéen ñi ñoom ñëpp ak seen enveloppe ba pare wéyal ñu wéyu neex yi ñu fi wéyal ñoo ubbil sëriñ bi sànq bi muy dugg ci eh, gàmmu gi wax naa sànq tamit eh, sëriñ Yuusufa dem na waaye fokk ñu gërëm ko ndax mag la waaye mag mu baax léegi léeg ñu am fi gàmm goo xam ne wolof rek la ñuy wax waaye fii lay toog ba mu jeex muy Yuusuf xanaan bi toujours may may nettali rek mbiram ak Cheikh Ibrahima Niass nee na ma maa njëkk a jëndal euh, Cheikh Ibrahima Niass congélateur euh, naka la congélateur nu mu tuddati air conditioner climatiseur waaw moom euh, ak magam Demson ñoo fi njëkk invité imam Assane Cissé daanaka ñoo ko ubbil buntu mën nañ wax biir États-Unis d'Amérique defee mi ngi fi woon mook soxnaam nekk fi tabaarakallaahu ak sama yaay Mariam Haydara ak eh, doom moom buy ñëw dafay indiwaale yóbbante doom yi yëpp waaw eh, bu ñu waxee mu ne eh, sama doom jëndee ci rajo bi déglu leen. laay ndeysaan ku baax la waaye doomu yonantu noonu la war a mel imaam Moustapha lii moom it waxoon na ñu dafay ñëw waaye xam ngeen xew ga mu nekk. présidente faatu Diagne moom moom it noonu la mel bu ñëwee it ak ak enveloppe yi yëpp moo leen di indiwaale nangoo sonn lool ci activités yi ñuy def fii. ak euh, ci biir New York ak fu nekk nag waaw na ñëpp sax ku nekk yàlla tax ngay def waaye fokk ñu fokk rek ñu tudd euh, buñ mënta tudd ñëpp it ñi nga xam ne am nañ leen ñu tudd leen euh, fii waaw Adja Sali Sarr moom bind nañ ko ñaari yoon xam naa ne tabaarakallaahu yitte jee ci yegg moo tax sëñ Tafsir daf ko beral loxo ñaari page yëpp defe naa ne gis naa ci Adja Sali waaye mérité na ko nag wax dëgg yàlla buy tukkeeg bu tukki ak lépp waaw damay toog rek sama imaam nañ def nangam ak nangam waaw fekk loo xam ne man sax xalaatuma ko waaw loolu it wax dëgg yàlla ah, te bu amee it yàlla la ak moor moo ko ko may ndax bu ko neexuloon du am waaye moor nag ah, ku ko gën a bëgg lu baax xaw ma ko wax dëgg yàlla soxna Aïcha bu sëriñ Masali moom it mi ngi fi eh, gis nañu teewaayam ak participation ak euh, daayira maam astu jànq bi ñoomi it ñëw nañ fi ànd ak soxna Faat Ñas ak ñi mu àndal yëpp euh, ak ñiñ fi bàyyi muy soxna ma Chérifa Mariam mi ndax ni mu nekkee doomu yonantu lu nekkee doomu Cheikh Ibrahima Ñas ak euh, Adja Awa bi ak soxna soxna Aysatu soxna si ju Njaay la soxna si Njaay moom it dafa bëgg Cheikh Ibrahima Ñas ba niroog moom radiallahu taala wax dëgg yàlla ñoom ñu ñëw taaral jotaay bi ak waa maqaamu Ibrahima tamit defe naa seen bis bi seen programme le 28 la vingt 28 avril bi lañu am conférence ñoom it pour seen affaire aj gi ak sëriñ bi loo alaaji loo ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi ñoo àndoon aj dafa bëgg yonent bi ndeysaan waaw da nga koy xool rek gis ne dafa bëgg am ñoo xam ne dafa am da nga leen di gis rek xam ne ñoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw Chérif moom gannaaw man tabaarakallah kenn raw ko ci bëgg yonent bi alayhi <laughs> salaatu wasalaam Chérif Alassane nag moom mention spéciale lañ koy def niñ ko niñ ko waxee sànq mook Serigne Alioune bi ak ñi joge ci état yi yëpp soxna Aminata moom ñëw na moom wane neen mooy sama njaatige ci jëdd ndax bu ñu kii rek mu yëgati loxo ndeysaan macha allah ak Adja Mariam moom it gis nga ñoo àndoon makk bu euh, Euh, Massachusetts Massachusetts nag dafa xaw a jafe seen biir seen Chérif Abdoul Khadir Chérif Abdoul Khadir démb fii ñoo fi nekk jullee ndoor ñu reera ndoor man moom ñoom tonton Waly ah am tonton Waly ñoom Chérif eh, dégg nga euh, am na ku des de ma fàtte démb suñu reer bi fi Mbaye Ñing docteur Mbaye Ñing waaw reer bu neex wax dëgg yàlla ak waxtaan yi ñoom sëñ naa Alioune ñoom Maxtaar Euh, mu dem parce que dafa amoon ay itte yu mu amoon waaye mu dellu si waat tamit euh, loolu it ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax Hassan brother Hassan he is an imam and I think to me he has the most beautiful voice ever ah, gis ngeen ko moomit mu bàyyi yitteem yëpp ah, ñëw ah, ak woy yoo kii nag kamara mu bàyyi moom gis ngeen rajoom bi passé ñu invité ñu ne ci lépp lu ñu war a def ci euh, bës bi Euh, moom générosité am noonu la mel programme bu mu demee daanaka nangu ko euh, ndax baaxam ak woyofam ak xam wane ne yëpp benn la te loolu lu am solo la mooy li professeur wax rek yëpp benn la loolu suñ ko xamee du amati problème. Euh, Pape Sali wa ngeen ne ak bolok bi ànd ak sëñ Bay ñoom ñaar moom boo jisee kenn ki rek seetal ka ca des ñoom it ñu ñëw ba Pape Sali xam ngeen ne mooy suñ jaatige ci dëkk bi këram lañ njëkk fanaan ci dëkk bi waaw wax dëgg yàlla mu baax lool yaatu. Eh, mu ngi nii eh, lii muy saay saay saay saay sama doomu nangam la nag mën naa ko wax loolu waaye tabaarkal la ku baax la ak alaaji Modou saaxo sama doom bàyyi la moom ñoom ñu ñaar ci alkande ja sax ñoo ñoo ca nekkoon eh, bu ko defee bu xuloog man rek ñëw bàyyi Sakho ne yow waroo xuloog mun taxa sax mu ne moom moo may tooñ <laughs> ak rahmatullahi ak sëñ jim ak tabaarakallahu xam naa ne li duuf ci nag wi xajal ci cin yi ñu ngi jégalu bu baax guddal nañ waaye fokk rek ñu eh, tudd yu rafet yi ak ñi rafet ñi ndax ñu bëri sax ñibbi nañu waaye ñëpp rek rafetal nañu jotaay bi Ousmane Balde nag moom mention spéciale lañ koy jax moom moom la gis ngeen ko moo nekk ci ginnaaw di eh, présenté nit ñi Alxaaji Omar Gueye Eh, moom it tabaarakallaahu nit ku baax ku bëgg yàlla ko yonentam mooy eh, doon borom kër suñu jigéen bu baax bu soxna ndey soxna man daal gis nga su may seetaan léeg-léeg suñu vidéo gàmmu yi damay tiit parce que da ngay toog rek seen benn waay fekk nekkatu fi toog rek seen jigéen fekk nekkatu fi man boobaa sama xel rek la sama balaa ma ko xalaat sax sama bopp la sama xel di daj ne moo ne dinaa toog rek bés ñu xool ma nekkatuma ci nekkatuma fi loolu nim ragloo ba tax sëñ daaw da wax na ko léegi kenn mën ñemewut a wàcc ñun ne suba dina la fi fekk te suñ jëf mu ngi mel ni dañoo war a dund ba faw xam nga loolu kenn mënu ko dégg am bu ñeeboo rek daal fagaru man daal dee ni ma tiitalee dee billaay ñemewu ma ko ah sëriñ Cheikh moo daan wax nit ñi dañuy tappale rek waaye dee kenn ñemewu ah dee ana diw ñu ne dee na diw ñu ne man sax même kilifa yi da ngay tudd kilifa gu mag koo xam ne euh, dañ daan wax ne budul moom dara du sotti li Charles de di wax ne boo demee cimetière ya boo demee doo fa fekk ñu dul les indispensables ñiñ doon wax ne budul ñoom du sotti mënuñ fee ñàkk rek a fa nekk ñi mënta ñi fi mën liñ koy wax diw mënu fee ñàkk ñi fi mëntoon a ñàkk rek a fa nekk xam ngeen ne de am na jamono kenn du dogal dara ca Madina te yonentu teewut yonentu laa wax de moom mi yàlla sottaan ci lépp tey nga dégg ne ñu ngi def casino Makka waaw ah, di ko def concert Makka waaw ah, xam ngeen ne am na jamono joo xam ne kenn ñemewuta wax dara Madina Madina bàyyi te bàyyi Ñas seewut tey nag nga demee nga gis rawdu bu rafet ba gis photo bi waaye anamu boo demee Tiwaawoon noonu boo demee nangam noonu moo tax bu ñu yeboo rek ñoom ñu baax ñi sax yàlla jël na leen xam nga ñoom bu leen yàlla jëlee yi deewuñu ndax ahyaawun inda rabbihim la yàlla wax ñi baax moom ña nga ca seen borom waaye ñett ñetti reality test balaa ngaa continuer bu njëkk bi mooy ndax leer na la wala leeru la li nga ma bëggal ndax ci sama xarit mu ne ah déedéet tegu ma ci sama bët dafa maa dégg rek mu ne waaw mu ne waaye terewul naa la jox beneen chance beneen test li nga bëgg a wax ci moom yiw la wala yiwut mu ne ah rafetut de mu ne leerul la te rafetut nga bëgg koo nettali ñetteel bi ndax li nga may nettali dana ma jëriñ wala amul njëriñ mu ne ko wax dëgg yàlla loolu de benn njëriñ newu ci mu ne ko li nga dégg leerul la du yiw te amaluma njëriñ ba pare nga bëgg ma ko nettali loolu nag ci ñun ñëpp la applicable yal nañu yàlla defal dégg defal ñu topp xam naa incha allah we will uh, give the mic to our brother our imam for the final comments and then we will make uh, Cherif make dua incha allah and wax dëgg yàlla sant nañu rahmatulah ñu ngi jégalu bu baax amoon nga ngant ndax yaa ngi yore bébé waaye yow moom ci jaan ja sax ñoo nekkoon jamono ya ngay gént jaan mu ne man dara mi tasaaxo faa la géntal jaan faa foog ne fa nga bëyut de bismillahi rahmani rahim wan najmi idha hawa